dañ koy kii ne rafetlu. Mm-hmm. dañ koy rafetlu me bu baax a baax wante lenn daal mun nañ ko wax mooy ko ñun am nañu yaakaar ne. Mm-hmm. Guy Marius Sagna bi nga xamante ne dafa bokk itamit ci mouvement bu ñuy woowee FRAPP. Mm-hmm. ak lu mu doon xeex. ñun de ñun gëm nañu gii bu demee assemblée nationale. dina leer naññ. d'accord ñun gëm nañu Guy Marius Sagna li nga xamante ne FRAPP lu muy xeex ci mbedd mi chaque jour di ko yuuxu. ñun am nañu yaakaar ne Guy Marius Sagna mooy ci ci biir kii assemblée dina continuer porter combat bi léegi loolu nag yàqul dara liggéeyam nu mu doon defee ak mouvement bi mhm. par exemple nu ñuy kiiwee recevoir moo ngi koy def bi mu nekkee député mooy ba léegi participer na ay activités yu FRAPP yu bëri animé na ay conférence presse pour rek wane ni que mhm. moom euh, nit ñi pour moom sax euh, jarul parce que je je pense que moom sax kii na ko wax na ko jarul sax ñi ko woowee ay honorable moom nee na sax surga la parce que askan bi la fi nekkal donc loolu yàqul dara. ci liggéey bi nga xamante ne moo ngi ko doon def ci biir euh, mouvement boobu la. d' accord wax nga ko léegi euh, teewaayam assemblée nationale da ngeen koy jàppee comme prolongement combat bi. bi mhm. mës a porté. Mhm. mais ñu bari aussi dañuy sukkandiku ci loolu surtout proximité am ak Ousmane Sonko pour wax ne yéen waa FRAPP da ngeen di da ngeen di politique ay opposants ngeen en réalité. lan ngay ban argument de réponse nga leen di opposé xam nga am na kenn ci doon wax hmm. dafa am maanaam boog ay nit ñi nga xamante ñoo ngi actuellement fii ci Sénégal dañuy gomloo nit ñi ko hmm. ñëpp a yem déedéet ñëpp yemuñu de hmm. ñooñu itamit ñoom ñooy daal di gomloo askanu Sénégal képp ki nga xamante ne da nga am waroo gis-gis ak le président Macky Sall ñu ne la yow opposant nga alors que tel n'est pas le tey Guy Marius Sagna su amee proximité ak ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko mais loolu engagé wul FRAPP sa n'engage que Guy Marius Sagna en personne maanaam ñun ci biir FRAPP ñu ko doon sanc kii bi kuréel bi waxuñu woon dañ koy daal di créer autour de touru Guy Marius Sagna wala benn Fatima Mbengue mm. d'ailleurs mooy li nga wax léegi rek d'ailleurs chacun est libre d'ailleurs dem dugg fu ko neex d'ailleurs loolu moo taxit mu am ce qu'on appelle maanaam leadership collectif bii parce que ñun loolu la ñu gëm ñunu dañoo war a toll fenn fi nga man lan mooy par exemple budul xëy na Aliou Gérard Koyta mais du dox déedéet. musul demee noonu. léegi nag nit ñi nag dañuy daal di faral naan noo xaw ma frappe moo nekk bras armé kii nii Pastef. loolu wax bu daanu ci saret la ay waxi kasaw kasaw la. débat bi kay xam nga mooy lan. c'est parce que frappe bi mu ñëwee fii mooy ba léegi. frappe a toujours participé maanaam teg. sur la table maanaam rendre plus audible les difficultés auxquelles les populations son confrontées c'est ça la triste réalité léegi ñoom amuñu beneen argument lu dul non Pastef la ñu bokk alors que ñun ragaluñ ko suñu statut yaa ngi ni ne fàng mais pour maanaam pour votre kii ni kii ni nan laa ko sax mooy gouver événement mois de mars dajale woon nañu euh, ak euh, Ousmane Sonko maanaam après les kii nii événement presse bi ñëwoon nañu mais suñu siège bu mu doon def tour euh, ah, organisation yi pour nuyu mm-hmm. et cetera mm-hmm. mais par exemple ñun ci par exemple point France euh, dégage ñun ak Ousmane amoon nag ci waxtaan mm-hmm. ba Ousmane mu ne non moom ah France dégage ñu ne ko déedéet xëy na yow comprendre peut-être contexte bi ñun bu ñu doon wax France dégage contexte bi lii ak lii ak lii ak lii la. Mm. pour rek maanaam wane ni que. c'est-à-dire le mouvement est indépendant et autonome. et apolitique. d'ailleurs bañ nañ ko sax. Mm. ce sont les membres du FRAPP. ñoom ñoo daal di cotiser chaque fin ñuy fay suñu siège et cetera et cetera et cetera. waaw loolu moom moo nekkoon. la loolu leer na naññ. Mm-hmm. loolu. dama mm-hmm. bëgg mu leer naññ. d'accord c'est très clair li nga wax. c'est très clair li nga wax mais naka ngeen di naka ngeen di fonctionner loolu moo nekkoon question bi c'est-à-dire que comment vous faites pour vraiment vous entretenir les locaux ak yooyu est-ce que da di bénéficier wu financement yu jógee à l'étranger wala c'est les membres comme ni nga ko waxee léegi ñooy kolo kolo pour vraiment euh, gérer affaire bi loolu moom dinaa ci sawar lool hmm. je rappelle que FRAPP mooy organisation bi nga xam bokk na bokk ci organisation fii ci Sénégal bi nga xamante ne jamono boobu Soros on l'accepte et euh, on reconnaît que nous des anti-impérialistes loolu loolu amul lu ñuy lam-laame te képp ko xam Soros biir Afrique taxawaayam biir Afrique mooy ko dafay daal di financer ay nit Soros boobu ñëwoon na pour financer FRAPP ñu ne ko hee bugguñu ñu def conférence de presse parce que ñun dafa am lu ñu gëm xam nga mooy lan hmm. doomu réew mooy tabax réew doomu réew mooy tabax réew ci loolu noonu ñun ci biir FRAPP ci loolu la ñuy daal di xool naka la ñuy organiser wu yaree ko maanaam suñu bopp yaree ko suñu camarades yi entre ñun. moo tey ku ci nekk ci ñun gën saa néew ñu ne la chaque fin du mois yow membre du FRAPP da ngay daal di cotiser lu mu néew néew néew néew chaque fin du mois 500 francs léegi chacun est libre. par hmm. exemple comme man ma ne naa sama cotisation chaque fin du mois damay cotiser 500 francs nit mu ne la deux cent non euh, mille francs et cetera cetera. ku nekk lu mu mën rek waaw. ku nekk lu mu mun d'accord carte membre Frapp bi soo koy jënd ñu ne la minimum gën saa néew mille francs hmm. nit mun na ñëw jënd jënd jënd. Hmm. nga respecté ñun ci biir Frapp. Hmm. boo respecté wul maanaam dañ lay teg ay ay ay ci ni daan sanctionné la. pénalité quoi. dafa am ay pénalité donc organisation bi. nu on se finance d'accord parce que loolu la gëm. d'accord doomu réew mooy tabax réew. ce sont les fils et filles de ñoom ñoo war a mun a émerger l'opinion moo tey état bi foofu la war a gënoon. donc FRAPP mooy FRAPP mooy dundal boppam mooy financé boppam. effectivement est-ce que dafa am ay conditions pour adhérer FRAPP le Sénégalais lambda qui veut intégrer le mouvement lan mooy les conditions. daanaka FRAPP c'est ouvert à tout le monde. képp ki nga xamante ne yow citoyen nga da nga bëgg adhérer ci ci biir FRAPP c'est très simple. am na ay numéros yi nga xamante ne soo leen woowee. da ngay adhérer dañ lay envoyer benn fiche nga bind sa tour comme rek sànq mooy kii ni mooy li ma la wax. yow yaay xool. chaque fin de mois bu dee mun naa participer 500. cotiser. mais da ngay jënd carte jënd sa carte. maanaam teg ak teew. d' accord da ngay jënd carte membre. FRAPP loolu la teg ak teew. participer ci kii nii activité FRAPP yi. d' ailleurs moo tey FRAPP. Euh, lancé nañu daaw suñu benn kii nii académie. alias académie de kii nii formation. ngir gën a tàggat suñu ndaw yi. gën leen gëmloo maanaam suñu suñu kiini nii valeur yi. wan leen ni que maanaam Afrique am na ay nit yi nga xamante ne wax dëgg fa na yàlla ay nit yu baax lañu te ñooñu dañoo war a roy ci ñoom. donc loolu yëpp dafa bokk ci xeex bi nga xamante ne aussi dañ koy daane maanaam tinki Afrique. Mm-hmm. parce que Afrique wala Sénégal boog ba léegi. dañ ko daal di eh, jàpp. maanaam doxandem ñoom ñoo daal di ñëw Afrique téye leen moo tax yooyu yëpp bokk na ci ay combat yi nga xamante ne. Mm. ñun loolu yëpp dañ koy daal di euh, ni ko apporté. d' ay panafricain ngeen ou ou bien panafricaniste ni ma ko mënee waxee noonu <laughs> est ce que am nga am ngeen frappe am na ay connexion dans les autres pays par exemple parce que on a vu euh, benn communiqué bu ngeen génnee def naa démb di wax ci la situation au Tchad dinañ ci ñëwaat. Mm-hmm. mais est ce que frappe vraiment les frontières. Euh, du Sénégal pour nag étendre vraiment sa puissance euh, au niveau continental ou bien même sous-régional. effectivement yooyu ñoo ngi ciy daal di dox d'ailleurs moo tayit euh, ci siège u FRAPP bi boo fa demee am nañ fa benn carte bi nga xamante ne ñoo ngi essayer di implanter wu maanaam comme sànq ni ma la doon wax nit ñi waruñu dugal seen xel burul kii rek mënul dem mm-hmm. maanaam ñun FRAPP moom mooy genre kuréel mooy bi nga xamante ne suñ doon wax maanaam ñun ay sage-femme lañu hmm. maanaam xam nga sage-femme rôle am mooy nekk ci weetu jigéen bi nga xamante ne dafay wasin hmm. mais c'est pas maanaam forcément que bépp jigéen mooy buy wasin dafa war a am forcément sage-femme xëy na liggéeyu sage-femme bi boobaa peut-être daf koy daal di jàppale pour mu accélérer xëy na mbir mi hmm. donc ñun noonu itamit la ñuy nekkee ci wetu askan bi moo tey FRAPP ci stratégie wam dañoo def ay stratégie de déploiement nekk ci par exemple moo ci département yi mm. par exemple soo xoolee fii ci kii ni mooy Sénégal département mii yu bëri maanaam plus de quarante cinq yi maanaam trente neuf yëpp presque am nañ fa ay kiini nii base donc base yi ñoo ngi xaw a euh, jóg ndànk-ndànk mm. mais au-delà mais ci biir loolu ci biir Afrique aussi par exemple comme Maroc mm. am nañ fa kii nii d'accord section par exemple comme Guinée Mali parce que je rappelle que FRAPP ci jamono boobu bi nga xamante ne Alpha Condé bu mu doon sàcc maanaam li nga xamante ne son mandat la qui était illégal et illégitime je rappelle que FRAPP moo nekkoon ci wetu askanu Guinée Mali la même chose pour maanaam dire ko nous avons de très bons rapport parce que d'ailleurs ñun loolu dafa bokk ci suñu gis-gis maanaam benn Afrique bu ñu libéré Afrique uni parce que lii nii yëpp mooy li ngay gis nii yëpp dafa bokk ci ay ay ci ci ay nooteel moo tax ñun dañoo gëm ni que muy Mali muy Guinée muy Côte d'Ivoire ak ñoom seen hmm. suñuy frère lañu. Hmm. moo tey FRAPP moom ngi ciy def ay jéego yu bari bëri. Hmm. pour xool naka la ñuy kiiwante joxante loxo. pour mun a faire face ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy daal daal di noot. d' accord d' accord d' accord venons-en euh, au dossier yi nga xamante ne. Euh,